rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu fi teew ñëpp di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Abdul Hamid mu sëriñ Abdul Aziz si al Amin Cheikh al Khalifa sëriñ Babacar si mu maam Cheikh al Xaaji Malik di ko ziyaara di ko wàccee wàcce waaye mooy wàcce waaye mboolem xadara maam Cheikh Seydil Xaaji Malik waaye mboolem xadara tijaani jataayam moo fi jataayu sëriñ Babacar Sy Mouhamadou Mansour mu nekk xalifa général des Tidianes di ko nuyu bu baax di nuyu mbooleem ñu fi teew euh, bu ñu ko tuddee rek yóbbaale na ñëpp ngir ñu gañe temps euh, commission culturelle bi xam ni waxtaanee ci wàllu xam-xam ni mu amee ay commission ci am naa mu faccante ko noonu la amee commission boo xam ni bu xadara bi day jublu si dañuy tànn thème waxtaan ci yaxal ko bu xadara bi jotee loolu mooy doon li ñuy waxtaanee ci palaatu télé yi ak ci rajo yi ba ci gannaaw xadara bi sax day continuer ñu koy waxtaane biñ ci amal ñu doon waxtaan ci ngëneelu sikkër ngëneelu tudd yàlla xëy na yenn yi dañ daan jël rek waxtaan mais dañu bind mais ci lañ njëkk a bind lu gàtt la woon loo xam ne ci ay ñett paas la tolloon ngëneel yi wax ci ilaha illa allah yi wax ci dikk toog ci jataay bi tudd yàlla ñu indi ayat alquran yi ci wax indi al ahadis annabawiya yi ci wax indi aqwalul ulama boo borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ciy wax mu nekkoon loo xam ne lu tënku la bi nu jógee ci loolu liggéey bi gën a yaatu bu culturel bi def bu commission bi def ci wàllu wadifa lañ ko jagleel bindoon ci benn maqaala boo xam ne mi ngi tolloon ci 62 pages léegi bi may xoolaat gis mu nekk 62 ma ne 62 de mooy Hamid te Cheikh Abdul Hamid moo fi teew kon jotaay bi mel na ne am na sirru suñu euh, euh, gëstu boobu ñu yaxaloon ñu ngi ko tuddee woon alkaafiyatu shaafiya fi ahkaamil wadifa mu nekkoon gëstu boo ne. yaataloon nañ ba nga xam ne lu bari ci wàllu indi woon nañ ko ci mën naa cee cité rek fëxras bi nga xam ni ci la Maodo ay nekk ci biir téere boobu li ñu njëkk a def mooy xam ne lan mooy wasifa biñ ci jógee ñu indi hukmu qiraatiha wa xuduriha lan mooy àtte jàng maanaam di def wasifa ak ñi ko teewe beneen bunt bi ñu wax ci arkaanu wasifa mbokk yi yi wasifa am nga xam ne benn bu ci manqué wasifa day yàq qiraatu wasifati ala xasari daaba boo nekkee ci oto wala ci avion di bëgg wasifa lan mooy àtt bi secret bi nekk ci toftale ويردوي maanaam def istixfaar salaatu ala nabi laa ilaaha illallah defaat salaatu ala nabi ban secret moo ci nekk nasru saw bi woo di lal malaan bu ñuy lal malaan bu ñuy wadifa lan mooy àtteem waqtul wadifa wan waxtu la ñuy wadifa kayfiyataani lil wadifati al asilati wal axira wadifa dafa am wadifa cosaanu ak wadifa cosaan bi nga xam ne wadifa bu mujj bi moo ko xool bu ci nekk lan mooy àtteem ñan lañ may ñu mën a def ñaari ak ki nga xam ne nii moom mënul def lu dul benn asahwu fi wadifati jamaatan boo nekkee ci mbooloo juum ci wadifa lan mooy sa àtt ndax juum yow kese booy wadifa bokkul ak nga nekk ci mbooloo juum booy wadifa loolu indi woon nañ ci àtte gàggal ci ci benn gàggal boo xam ne ñu bari dañ ciy gàgg ci wadifa mooy bu ñu juumee ci wadifa bi yokk daal pare nañ ne nañ def istigfaar téeméer ñu wane ne loolu njuumte la argumenté ko ci tariqa ci ay téeréem juum ci wasifa yokk amul téeméeri istigfaar bu dee wooloon la bu dee yow kese la am lu mel noonu loolu yi tamit indi nañ ci ak yaatal ci biir téere bi beneen bi ñu wax ci fadaailu wasifa nga neenu wasifa fawaatibul xuduuriha beneen yi nekk ci teewe ko ful gi ñuy ful boo wadifaa ci mbooloo au lieu yow kese nga wadifa wadifa ci mbooloo doole ñi ci nekk liñ koy fulee al julus wa taxliq lil wadifa toog ak def géew ngir wadifa lan mooy tax lan moo tax ñu ko lan mooy sàrt wadifa lan lañ ci sib lan lañ ci sopp ana kan mooy fay wadifa bu ko rawee ak ku ko dul fay na lu mel ne lan la ñuy tuddee badal ak lan mooy àtteem koy wattee ci salaatul fatih lan mooy waral badal ban waxtu la ñu tànn ngir wadifa muy waxtu muxtaar ak daruuri jiital wadifa kan moo ko mën a def ak nan lañ koy defee taqdimul wadifa xukmu qiraatil wadifati ala al mayit ban àtte moo nekk ci jàngal ñu bari ñu ngi koy dàq ci tarixa bi te sax na nit mën na faat ñu wadifa loolu tamit argumenté waaye dafa am ay textes yu mu jotutoon di nga koy bañ na texte yu bari ñu ñu indi ci biir gëstu bi wane ne sax na da ci dund Mawlana Seydi Cheikh Ahmed Tidiane wadifaal nañ ko faatu ba ci Mawlana Cheikh Al Hadj Malick indi nañu ci biir gëstu bi wadifaal ko mu wadifaal euh, ko faatu lan mooy yàq wérdu ak wadifa ñu ñëw nag ci ay ak i aju bi ma question réponse ñëw ci sharha alfaadul wadifa baat yi ñuy wadifa nan lañ koy def al wasaaya al aama benn dénkaane boo xam ne dafa généralisé loolu mooy li nekk ci biir gëstu bi mu tolloon ci soixante deux pages ñu tuddee woon ko alkaafiyatu saafiya fi ahkaami wadifa gëstu boobu nag biñ ko amalee ak tey am lu mel ne daaw ak daaw bi daanaka dañ cee dellusiwaat ndax gis ne njëriñ bi weesu na rek mu nekk benn thème ñu bàyyi noonu waaye dañu bëgg ñu gën ko yaatal gën ko tasaare te gis nañu njeexit bi à travers am na xadar ci tijaan yi xadara yi ñuy amal ci Sénégal retour yi ñuy jot bokk na ci fu ñu dem ñaaxaat bokk yi ci wadifa dinañ gis ne buñ fa jógee dana am lu sottee fi ñu daanale nag mooy thème bi ñu jël ren te daaw lañ ko dooroon yeggale wuñ ko woon ren ñu fas mooy dañu tànn benn risaala ci risaala boo daana sëñ Cheikh Ahmad Tidiane yi mu def doon ko bind di ko jox taalib bi boo demee ci Jawaahirul Maani ci ñaareelu xaaj ba am na benn risaala bu ñu tànn boo xam ne nii lépp lu Seydina Cheikh dénkaane bi da ngeen ko fonk dañ ko jël bëgg ko saraxa lu ci mel nii dénkaane la ba yegg ci wane ne bàkkaar na dafa bari ci jamono nañu bari lu ñuy def mu kafiraatu zunub ñuy far bàkkaar ñu dañ ñu jagleel ko tem tem boo xam ne dañuy wax rek fu mu kafiraatu zunub indi texte diine yi ci wàllu alquran wàllu sunna borom xam-xam yi liñ ci wax am na ci fu muy dénkaane fonk fonk waxtu julli juróom ci liggéey bii nuy bëgg a yeggale ren mu nar a tem danañ ci wax ci ngëneelu julli waxtu yi juróom ak di ko defee ci ca mbooloo Seydina am na fu muy waxee ci ngëneelu zikr moom it danañ ko yaatal ngëneelu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngëneel yi nekk ci sàkk sarax ngëneel yi nekk ci jokk mbokk ngëneel yi nekk ci fonk ñaari way jur ak tere gi mu tere moom Seydina Cheikh bañ di gëstu awray jullit ñi seeni ayib yu nëpp nga dem di ko gëstu ngir fësal loolu tamit danañ ko yaatal al afu wa safu an dallaati ixwaan jéggale ak jëlle rëccëri ci mbokk yi al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar digle lu baax ak tere lu bon topp muqaddam ak kilifay jullit ñi ni mu ko diglee lan mooy wareefu muqaddam muqaddam bi ñu jiital lan mooy wareefam gëstu biñ ci def indi nañ ci muqaddam lan mooy ay wareefam am na ku ci bind téere tuddee ko alqawlul muhkam fi sifatil muqaddam nga xam ne li xaaj bu jiit ci loolu rek lay wax melokaan muqaddam loolu am na lu ci jukki lu nekk ci biir gëstu bi insha allah danañ ci leeral tamit benn sew sew bu nekk ci muqaddam bu nu bindal ijaasa itlaaq muy bindalaate ijaasa te waru na bindalaate ijaasa loolu insha allah bu gëstu bi génnee danañ ko ci leeral ndax lii tax nga mën a bindalaate ijaasa il faut nga am itlaaqul itlaaq dañ lay bindal ijaasa mentionné ci biir ijaasa bi ne mën nga bindalaate ijaasa loolu du ko nekk moo koy am waaye ci am lu mel noonu kooku moo mën a bindalaate ijaasa lu neex a expliqué la mi ngi mel ne nga dem ci école jàng ñu bindal la ne am nga ba ndax mën nga bindalaate ak yow doo bindalaate ba beneen bi njëriñu ñaan wax nañ ko ci Ava bëgg yaasa gak gàkk yi nekk ci bëgg daraja ak bëgg siiw bëgg yëkkatiku loolu yi dana ci feeñ asabru wa rida muñ ak gërëm dogal yàlla ba tey dana jël si waat mu laa doon tur wati fa ndax ci li Seydina Cheikh dénkaane ko saani bi la bokk fonk wati fa di dem di di ko defee ji ca mbooloo sàmmonteeg ndigalu yàlla ak bàyyi ay tereem li ci Seydina Cheikh wax ñu fas ko bi bi mujj ci yooyu mooy sukurullahi azza wa jalla sant yàlla mu màgg mi subhaanahu wa taala bi ñu ko xoolee dana mat dix-neuf thèmes bu génnee ci benn risaala bu Seydina Cheikh Ahmad Tidiane loolu insha allahu taala ren loolu lañu fas yéene yeggali mu nekk li nga xam ne moom la commission culturelle de liggéey ñu ngi jéggalu ci kàddu yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa